mbokk yi salaamaaleykum ci biir néegu ñëwoon démb tey nag justement dama dugg ci néegu gardien de but man sam bopp damay excusé wu auprès des gardiens de but ci euh, ñi nga xamee ni dañ fi ñëw ci gardien de but yi barewuñu je me souviens Maguette bu ñaay Birane Ly aussi jaar na fi heureusement ku ci jaar rek avec d'autres gardiens de but alors je m'en excuse c'est vrai que kii euh, seetaan il n'a Dieu que pour celui ou ceux qui marquent des buts ce n'est pas pour rien qu'après plus de 60 ans de ballon d'or benn gardien de but moo ci nekk Lev bu euh, bu URSS je sais que am nañu ko mérité woon Dinozof bu Italie Ivan Kurkovic bu Saint-Étienne euh, euh, Gianluigi Buffon actuellement au PSG Neuer bu Allemagne Sepp Meyer bu Allemagne mérité nañ ko parce qu'ils ont souvent gagné des matchs c'est tellement vrai que ce poste est tellement ingrat que quand un gardien arrête un penalty on dit que le tireur l'a raté alors qu'il ne l'a pas raté c'est le gardien qui l'a arrêté chez nous gardien yi baax mus na bare mais dama ni je m'en tiens à l'équipe nationale jusqu'au moment où danaa mën dugg ci club yi qui sont-ils en équipe nationale Saliou Sow Zal de l'avenir de saint le premier nationale il y a eu ensuite Lamine Koura ak Yali Ndiéguen euh, puis Amady Thiam ak euh, Toumani Diallo ak Massata Diallo euh, sama invité bi foofu la génnee ci wetu ñoom Thiam ak ak Demba Mbaye ak Birane Ly alors mon invité de ce soir gëj ngeen ko gis simplement parce qu'il ne vit plus au Sénégal depuis tey jii près de 40 ans vous avez souvenance de Alioune Sarr gardien de but de la Jeanne moo fi nekk tey Alioune saar bari na ci yéen ñi nga xam ne 30 ans ngi ne gisuñu ko Alioune ma bàyyi leen nga nuyoo ah ñi la gëj a gis di la dégg. ñu lay waxtaanee léeg-léeg ci émission bi toi le gardien de but de la Jeanne d'Arc dinañ ci agsi tout à l'heure euh, sa carrière année 70 nga jóge fa dem en équipe nationale. Euh, moo di époque bi nga gën a marqué ma bàyyi la nga nuyu waa gendarme ñu soobu ci waxtaan bi. jërëjëf lay kontaan naa ci invitation bi. Sarr vraiment kontaan naa ci trop di la nuyu di la gërëm. di ko suivre nag <laughs> di suivre l' émission. jërëjëf Alioune nee nga ma tu es en France mais doo ko raté. dama ko raté dama ko rate oui oui. di jël di di ci jéetal euh, décès Ousmane si Ousmane Sy. Ousmane Sy euh, gardien de but moom it. Gorée Port entraîneur gendarme yàggul du tout. yàggul way way yàlla yërëm ko te amiin amiin amiin xare ko àjjana bi. émission bi mhm. parce que euh, xam nga euh, da ngeen warul fàtte. Mhm. si vous tombez dans l'oubli mhm. suñu faute lay doon moo tax vous ne tomberez jamais dans l'oubli pour li ngeen fi def Jeanne équipe nationale du Sénégal nga ànd ak ñu bare bare bare euh, daañ ko jéem tënk rapidement euh, Jeanne d'Arc à partir de quelle année Alioune Sarr Jeanne d'Arc maa ngi fa ñëw en au, la, au lendemain de la fusion de la fusion man j'ai fait mes débuts aux Dakar ah bon Espoir Dakar Espoir Dakar la def sama début ah. junior tu te rappelles finalu Espoir Dakar foyer foyer France waaw waaw waaw Mbaye Fall boobu tam Mbaye Fall junior la. waaw Flavio ñoom Flavio ak ñu de suite comme ça waaw waaw foyer Keroog Dóor Espoir Dakar 2-1. oui oui par manque de gardien de but. ah d' accord def nga Espoir Dakar def vrai que Jeanne d'Arc moo la feeñal ma feeñal. parce que équipe première la. parce que dama ñëw Jeanne d'Arc nekk nawetaan Damels. ah d' accord. suñu équipe nawetaan bu koñ Damels. waaw bi ma ñëwee Damels j'ai fait match contre Waagu Ñaay. Mhm. ma war di ànd ak gis ma waa jaay di ma di ma wut jaraaf di ma wut. Mhm. ma mujjee ci Pape Seck le maire de HLM. waaw Pape Seck ñëw comme ñoo bokkoon koñ sama grand. oui oui fils aîné moom laa ko tuddee. ndeysaan. mu ñëw moom ñëw ne ma non bu doon ñu la doon fay ay milliards sax GIA ngay dem. GIA ngay dem. ma ñëw GIA mais ma ne ko GIA caama nga fa. waaw kanam waxoo nga fa. waaw te fa lañ juddoo ñooñu. wax nga dëgg. mu ne ma yow ma si ko ne ma ñëw nag ci laa ñëwee imposé. waaw. ci laa ñëw nag imposé. wax nga dëgg. Thiam dernière année boobu mu bàyyi. Mm-hmm. ma ñëw nag imposé man ak Karamaxo ak Thiounlès benn ganeen bi mu daan wax Thiounlès. waaw ñu nekk fa ba ñu fa nekkee à l'époque caisse commune la woon. waaw c'est pas le, le parlement là. exact caisse commune la woon. caisse commune des transports des transports. <laughs> en début de saison en début de saison tournoi caisse commune ñu def euh, travail boobu ak Lamine Thiam. Mm-hmm. ma góolu tournoi bi ñu jël tournoi bi final ak Barak. waaw Barak de Sène gagné Barak de Sène ñoom Mendy et tout ça ñoom Anoun. Pape John Mendy ak Anoun Pape John Mendy ñu gagné leen. oui oui. ñu entamé championnat bi Karamakho di ñëw ñu démarré contre Dial ma def cinq journées sans sans encaisser de but. sans jël but sans jël but cinq matchs. cinq matchs jël but. avec la gendarme avec la gendarme. est-ce que. Karamakho nag si soog a ñëw di entraîner nag ñu dem ba huit journées ba ñu jël championnat bi Lamine Ndiaye ak Lay Sow ne ma. xam ban match dañuy may Karamokho mu góolu mhm. bon ci li ma dégg à l'époque bon booba temps waaw ñu ne comme Karamokho nee daal dañ koy may pour mu góolu mais moom dañ daal lu góolu ak affaire li affaire yooyu tu vois waaw ñu dem ba mu jël championnat bi oui ñu dem finale contre Jaraaf contre Gorée contre Gorée bokkuma 1972 72 Gorégia Gorégia ñu ñëw contre Jaraaf finale ma def parcours bi yëpp seizième de finale ba demi finale maa ko góolu. 1973. yëpp maa ko góolu ba finale ñu classé ma ba finale on avait des mutés euh, Anoun Ndiaye Mendez ak kan ak Kona xaw ma kan. Mhm. ci lañ sacrifié Sega Sakho. waaw Sega léeg-léeg mu métti lu ko. mooy def ko métti. waaw ci lañ ko sacrifié ak Mendez ci photo groupe ba sax Sega. Sega mi ngi ci waaw. ñu ñëw ba finale ba ma doon partant ñu dindi ma ñu ne ma Karamoko mooy góolu. waaw. l' année prochaine encore ba ca toppaat ñu final ak ASFA. Mhm. ma góolu contre ASFA boobu. Mhm. ñu gagné leen deux fois demi finaliste coupe d' Afrique man maa ko góolu. waaw parce que xam nga bu ñu wax waxu Jeanne d'Arc. waaw demi finale coupe d' Afrique demi finale coupe d' Afrique. yéen ci jëkk dugg en 1974. 1974 boobu maa nga rajo Kaolack. maa ngi fàttaliku keroog Pathé Dieye. Mhm. Pathé Fall Dieye Pathé Fall Dieye. oh il t'a tracé un boulevard. ci match bu rëy boo def à Brazzaville. effectivement certes certes Jeanne d'Arc avait perdu 2-0. mais Pathé nee na bu du woon yow ñu gën défaite bi gën a large. maa ngi koy fàttaliku. oui demi-finale Coupe d'Afrique. demi-finale Coupe d'Afrique. Jeanne de Brazzaville. Kara de Brazzaville. oui 1974. ñu di ma di xool di ma testé di xool sama loxo prise yi ak yooyu ma ne ko comme ça mais coupe mun naa dem de. Mhm. ma wax a wax j'ai tout fait mu ne ma non coupe d'Afrique demi-finale bàyyil Karim ma ko góolu comme dara jotu ko ma d'accord comme choix boobu nga gis. waaw jël ko oui mu jël mu jël mu jël xam nga euh, euh, sa diggante kara xam nga lu ma rappelé. Mhm. Euh, karama ko. waaw Claude Leroy dafa mus ni. Mhm. il faut éviter dans une équipe. nga am ñaari grand gardien. grand gardien da ngay am un titulaire. ak aspirant ci gannaawam gisoo par exemple combien de gardiens sont passés au Jaraaf. Mhm. mais mënuñu feeñ. ndax Cheikh Seck heureusement Cheikh Seck. Euh, c'est le plus grand gardien du Jaraaf de tous les temps il a réussi. il a réussi. il a réussi alors yow sa diggante ak Kara. ak Kara Mokho oh, loolu la woon cohabitation bi foo jaar mu am tiraillement. waaw parce que day am ñu tam nga am sa nit. am sama gi on s'est trouvé. gisoo coow ni mu baree woon quand Kara Brazzaville. a gagné le match retour à Dakar. lu nekk ngay dégg keroog maa ngi fàttaliku match bi ñoom xaar mbay ma jàgg ñëw la ñu gunge si Jeanne d'Arc Demba Diop mel na ka lamb keroog avec la présence des xaar mbay ma jàgg ci main courante bi ça c'est vrai tout ça dama ni cohabitation deux grands gardiens deux dafay daal di. mais mujj se trouver un terrain d'entente. bu ñu weekend bi ñu ne ñu jubóo nag nekk na ay ah, gars yi. ah si si léegi sax yéen ñaar yi ñuy xàjjalante. ñun lu mel ne les entraîneurs. waaw dootuñu classé. ñun ñooy yéen seet ñun ñooy seet weekend bi mu ne ma Cheikh mais lune kon yaa jël weekend bi ma ne ko waaw maa jël weekend bi dana ñëw entraînement dana ñëw entraînement mais vendredi du ñëw man yéen ñaar ñooy gisee ku nekk daan sama borom yaay joué ah c'est magnifique ça surtout nag am ba sama benn grand bu fa nekk Omar fay sama xarit sama mag sama su ma xarit uh-huh. mais kooku sax li moom ma gën a forcé encore ma gën a dëgër gendarme Omar Faye. Mhm. oui. alors nga ñëw fekk fa Amady Thiam Amady Thiam. mais Alioune lu jafe la. parce que kaay kaay fekk Thiam fekk booba temps. Thiam li mu représenté à la gendarme bokk ñaari génération parce que Thiam dafa ànd génération bi jiitu. bu jiitu. ba pare ñëw ak yéen ñun. parce que Thiam dafa joué ak ñoom Domingo. mais ñoom Domingo ñoom Souri. ak ñoom Souri ak ñoom Sarbandam ñoom Sarbandam. voilà joué ak ñoom. yow nga fekk ko fa xam nga yow xam nga déjà raison la woon. pour que uh-huh. nga bañ dem Jeanne d'Arc. Uh-huh. parce que boo fa demee. doo joué ndax Thiam ndax Thiam. ndax Thiam moom ndax Thiam moom. parce que boobu temps nag caam aussi. non moo fi ëpp doole. moo fi ëpp doole am na benn jamono waaw. c'était le meilleur gardien dem naa ba asmara ñu ma kay laaj. ba asmara mais jàmm mujj gi mujj gi bi muy bàyyee sax bi mu bàyyee. Hmm. man dama ne kii daf ma bañ bëgg karamaxo <laughs> ni ma doon def noonu lay def karamaxo. ah d'accord ñu daan torturer ba nga xamee ne. mais bi non. léegi dafa dafa retiré wu nekk seen entraîneur. nekk suñu entraîneur yaakaara ma karamaxo. est-ce que. ma karamaxo. oui oui moo tax bi ñu mawaat di jël euh, bi ñuy dem Agadir te nga nekk rajo Kaolack. waaw. naan euh, le Sénégal vient de découvrir xam naka waxati. waaw waaw xam nga ah, wala mi ngi doon xam nga boobu temps yéen ku nekk ak day inspiré. day inspiré waaw. day inspiré. boobu temps nag xam nga yow càmmoo la formé. waaw mais xam nga kan nga niru ci gardien gendarme yi. waaw tey jii ci équipe génération boobu am na mag yu des. Hmm. Mendes a ngi fi. Hmm. ak Henri Diop ak ah, Henri Diop. Henri Diop moo nekk Dakar Sacré Cœur. parce que les années cinquante ñoo doon les latéraux de l'agenda. Mhm. Henri Diop est droite. Mhm. Mendes est à gauche. Mhm. mais xam nga koy rappelé. Uh-huh. Pierre Seck Pierre Pierre lañ daan wax parce qu'à l'époque on mettait le nom. avant le prénom Seck Pierre yàq moom yéen niroo technique gu gardien de but. c'est Pierre moom nga niru woon alors bu nga ñëw. imposé wu. xam nga ak Amady Thiam. Euh, dañ la wax ni la Thiam day bàyyi moo taxoon nga ñeme. ñu ne ma Thiam day bàyyi <laughs> moo tax ma ñeme. ah oui ma Kara leen non mais non bu dee Kara ak keneen ak keneen keneen ñooñu moom toppatoo ma leen. waaw mais bu dee Thiam. Thiam waaw xam naa ne moom aw ma benn sens. exact waaw tant bàyyiwul. waaw pour mën a ñëw nga nekk titulaire. pour ma mën a ñëw titulaire. mu nekk mu nekk fête c'était le début de la fin de la fin. les années 70 70 voilà muy bàyyi. muy bàyyi. ma ñëw nag voilà. kon gaañi Alioune Sarr gi di gis nga Alioune euh, pour que gaañi gën a am image euh, wax ma ñu nekk ci photo bi. photo bi ñu taxaw de gauche à droite Ablaye Diallo. Mamadou Diop Kona Anoun Ndiaye Boucar Diouf Alioune Sarr Séraphin Alpha Touré euh, Abou Sarr. Mhm. Dada Tidiane Sy Sega Sakho. Christophe Sagna. mais sur le papier équipe bu Jeanne d'Arc bii mu doon def lu nekk. non lu ne non équipe bi ban souvenir nga am ci équipe bi Alioune. équipe bi souvenir mu ci am année bi ma jëkkee ñëw jël championnat jël coupe du Sénégal. Uh-huh. dem demi-finale Coupe d'Afrique. waaw Cara de Brazzaville. Cara de Brazzaville bu ñoom Gabriel Dengaki ak ak. Euh, ak Mbodo le sorcier ak Mbodo le sorcier <laughs> à l'époque ak Santos Brown bu ASEC d'Abidjan ma éliminé ASEC d'Abidjan. Diéfonéyé waaw. Hmm, à Abidjan même Abidjan. oui oui ñu éliminé leen. oui yooyu daal. oui oui. laa am ci. yu gën a yu gën dund ci yow dund ci man. voilà euh, mais euh, ku def li nga def a la Jeanne d'Arc. Hmm. dana ñëw équipe nationale équipe nationale. yéen entraîneur nga fa fekk. fekk naa Koya. Uh-huh. Pape Diop moom njëkk convoqué équipe nationale. Pape Diop Pape Diop après euh, couplé wu Koya. waaw. après Koya Mawade. waaw. après Mawade euh, euh, Longrois la. Kaloksaay. Kaloksaay. Mm-hmm. Kaloksaay. Kaloksaay Kaloksaay. waaw ñooñu ma gën a marqué. sa partenaire à l'époque ñi nga daan ñi nga amoon en défense par exemple comme défenseur. défenseur ñi ma amoon Abou Sarr. Abou sar du même club gendarme. même club. oui. Ah, équipe nationale wala kii. Euh, euh, équipe nationale. équipe nationale boobu y avait Ablaye Gueye. Ablaye Gueye Gorée. Assane Mboup. Assane Mboup gendarme Malick Diallo. Malick Diallo Linguère. Linguère euh, Petit Gueye. Petit Gueye Barak. Barak. Tidiane si Tidiane si Ozobio. waaw wax nga dëgg. waaw Tidiane si Ozobio. wax nga dëgg. Léopold Diop. Mhm. Léopold ak kanati Euh, euh, euh, bokk nga ak Léopold ak Yamagor. peut être Yamagor Seck Yamagor. Yamagor Seck boo nee tuddee Léopold rek mu indi la Yamagor. ak Yamagor Seck wax nga dëgg Yamagor Seck bi ay Koulibaly. voilà Koulibaly Asfa Koulibaly Asfa. oui. Koulibaly Asfa ak kan. Mamadou Diop. oui. Boy Dakar. Faragomis. Faragomis non. Faragomis leen fekk mu dem. fekk naa mu dem. oui way fekk naa mu dem. mais Alioune am na ñu am na ñu équipe yu jëkk ya mhm. ak joueurs yu jëkk yooyu ñëw gën a raase yu léegi loo ci wax mais c'est vrai lay parce que bon te fekk nag le temps évolue waaw temps bi dafay évoluer day changé day jox li li may wax rek ñun on a semé les gosses on wax nga dëgg parce que ñun dañ daan dem ak jom gisuñ ci woon dara. wax nga dëgg. dara lañ ci wutil woon. wax nga dëgg mais léegi amatuloo amuru jaraaf amatuloo amuru gendarme. léegi amatul doomu équipe. amatul doomu équipe. parce que xale yi même bu ñu dee amateur l'esprit est pro l'esprit est pro dañoo seet fu baax ci ñoom baax les dirigeants même les dirigeants da gis joru dirigeant Jeanne bu yóbbu doomam ci feneen parce que foofu la intérêt bi nekk mais man sama papa goréen la ndeysaan mais papa goree waaw mais lu nekk la ko daan wax am loo ful amoo fayda di bàyyi sa doom bi muy dem sax tegi tegi egg oui oui est-ce que léegi nag loolu amoon bu njëkk moo amatul léegi. voilà moo tax la football léegi. voilà euh, euh, da ngay bëgg maillot bi da bëgg maillot bi. waaw club bi da koy bëgg. da ngay bu ñu la cotisé loolu sax nga cotisé. nga cotisé voilà. mais toog mbay mbeng ñoom ñoom Seydou Ba c'est des copains dañuy ànd mais bu ñu nee Gia Jaraaf wala Gia kii ba mu jeex. ah boobu bu ñu faree ñu toogaan. fekkee nañu loolu beneen photo Gia ngi. ñi xàmme nga ñi ci nekk attention. attention beneen photo Gia ngi noonu. beneen photo Gia ngi nii ñi ci nekk xàmme naa leen ki taxaw man la Alioune Sarr Atta Ndiaye Khalim Mbengue Mass Dieng Tidiane Seck Mass Dieng qui venait Dimbose Dimbose Dimbose Alioune euh, Ali Sarr Ali Sarr décédé décédé waaw Moussa décédé ndeysaan uh-huh. Joseph Koto Moussa Traoré aussi venait Dimbose Dimbose Moussa uh-huh. Traoré venait Dimbose Ablaye Samba tamit venait des Almadies Ablaye Samb mooy métis bi métis bi ak ak bu tuufi bi noonu waaw moom yaa ji eh, mooy chinoise yaa mooy chinoise oui oui waaw yaa mooy chinoise ak Matar Fall mhm. il venait des Niayes il a joué aussi au Ndiambour au Ndiambour waaw ak Jean Rigal jaar na fi ñëwoon démb ñëwoon démb jaar na fi ah. Rigal bi mooy nijaayu Patrick Patrice Patrick euh, Evra bu équipe de France bu équipe ah, ak Marseille ak Marseille c'est son oncle c'est son nom waay ah, son nom euh, Jeannot Rigal aussi deful carrière bi war Jeannot Rigal def na carrière. oui tamit laay bi ñu njëkk dem euh, ma équipe waaw avec les Senef tu te rappelles ni woon leen Senef. waaw Senef yi. Senef yi ñan la woonati ci. Senef yi ñuy àndaloon Bamba jara Bamba. Louis Gomis. Mhm. Louis Gomis la woon Bamba Diarra ak Louis Gomis. boobu fu ngeen demoon. dañ demoon Agadir. contre le Maroc on ah, match qualification coupe du monde bi. ñu waroon jouer match retour bi à Dakar. ci lañ leen wooyee wax nga dëgg hmm, wax nga dëgg wax nga dëgg mais Alioune les souvenirs se les souvenirs se bousculent. waaw les souvenirs se bousculent ci période bu nga xamee ni tey jii. Hmm. c'est tellement bien dit vous avez semé. ce sont vos enfants qui ont récolté parce que xam nga euh, yaa ngi fàttaliku ko cette génération bi dem barrage coupe du monde ak Maroc à Las Palmas c'était pas important pour sans importance. amuloon benn importance benn def nañ fi ak Angola. qualification coupe du monde tir au but. c'était pas important. parce que pour ñun. c'était juste pour satisfaire à l'exigence du calendrier, calendrier simplement parce que la Coupe du monde à l'époque on croyait que c'était pour les autres. C'était pour les autres. mi ngi noonu. voilà mi yëg naa ni kër gi Youssou Ndour. Mm-hmm. naa ni c'est ton ami d'enfance. dégg naa yéen a dëkkoon Médine xale la ndoo mm. ànd lu yàgg yàgg ban souvenir nga am ci Youssou Youssou souvenir bi am ci moom Youssou Ndour bu bëggee góolu sax man ah. maa tax mu bëgg góolu ku bëggu góolu la ku bëggu góolu gis naa ay photo mu sol gant di góolu di góolu waaw à l'époque y avait un gars ndeysaan kooku yàlla na ko yàlla yërëm te yéexanu Mbaye hmm. mu amoon Austin waaw oto yooyu ñu daan wax Austin Austin moom mii kon di ko dawal et tout ça là mais Grand Lune mais grand du ma dawal ma ne ko a dawal. keneen Youssou ma la wax loolu ne ma du ma dawal ma ne ko di nga dawal ndax dawal da dawal kay. <laughs> ma jël ko dugal ko ci Ostinu Mbaye Ndiaye. waaw comme rue rue rue ba rue de bis bi noonu. ñu jël rue 15 bi. waaw mujj gi terrain boobu ñu ngi ko tuddee woon naka waay ci armère yi am na ñu ko tuddee woon. Wembley Wembley <laughs> ñu dem Wembley bu ñuy def ay tour ak yooyu. waaw bon allez ba après nag bon. voilà bu xamoon ni yaa ngi fi mu wàcc mi ngi ci biroom su xamoon ni yaa ngi fi mu wàcc nuyu la mais ko bëgg émission bi dana ko gis te xam naa ni dana regretté li nga ñëw ba fii te te te gisu la voilà Alioune Sarr laay dalal c'est un des grands gardiens que le Sénégal est connu un des très grands gardiens xam nga euh, ku pousse à la retraite doo gardien bu ndaw def équipe nationale du Sénégal moi la première fois que je l'ai vu jouer il m'a rappelé Seck Pierre un de ses glorieux devanciers à la Jeanne waaw parce que tradition la woon tradition la woon que d'avoir de grands gardiens à la Jeanne moom tey jii euh, ci ñooñu la Alioune tu vis en euh, en France depuis combien d'années léegi. léegi ma bon vivre naa fa six ans léegi man naa ngi Italie. léegi yaa ngi Italie. maa ngi Italie maa ngi Italie avec ma famille. waaw waaw ngi dañu nag tasaaroo nag. waaw waaw ñi ngi Paris. ñi ngi ñi ngi Italie. d'accord ah, mais tu es hors du Sénégal depuis 1974. maa ngi fa de non non non non non non bi ma 86. Ah, bi ma arrêté 86 nga arrêté la arrêté nag. bi ma arrêté complètement nag 86 ci laa commencé génn nag. ñu may affecté ay Cameroun ak Portugal ak. ci consulat Sénégal dégg naa waaw ci consulat yi. tu as fait le Cameroun le Portugal Cameroun Portugal euh, Espagne. Espagne Italie Italie yaa nga en Italie ba tey ah oui yi ñu ngi dajeeg yow te xamuñu li nga def mais bu ñu gisee émission bi daañu ñëwee xamuñu ni grand bi xamuñu ni grand bi def na def na lii lépp nga nekk foofu di dégg situation Jeanne d'Arc en ce moment ban lecture nga ci am mais lecture bu métti laay yéen ñi yóbbu Jeanne Afrique tey ngay dégg Jeanne d'Arc ci niveau nga xam ne neexul boo xam ne neexul tey ku bu ñu génnoon àdduna ku ñu yeewoon nañu Jeanne d'Arc mi ngi ci position ngeen ni pas ma mënul ne mënul mhm. ne mais lépp nag këréel la këréel dirigeant rek la mhm. te tamit lay ci sama xalaat bu gàtt mhm. état bi seetaan nañu seetaan nañu sport bi seetaan nañu. Mhm. parce que la gendarmerie patrimoine la. si si. jaraaf patrimoine la. si wax nga dëgg. am na noo xamee ne mi ngi koy demee. oui oui mën nañu seet solution. Alioune Diaw a tenu les mêmes propos que toi. xam nga Alioune Diaw seetaanuma ko sax gis naa ko ci dëj bi démb. voilà Alioune foyer France ah. Sénégal. Euh, international de la fédération uh ah. -huh. du Mali puis Jaraaf. Uh ah. -huh. voilà Alioune Diaw ouais. Euh, a tenu les mêmes propos que waaw. alors yëg naa ni ancien wu. mbaa di nga di dem seeti leen. retrempé bala ngay mais maa ngi ci groupe bi maa ngi wax ak ñoom te tamit Sadio Demba ak Lamine Mboub di ci def travail boo xam bu colossal. ak Pape Mbengue def travail boo xam ne vraiment. waaw vraiment bu bu mucc ayib. parce que mus na waaw mus naa dégg suur yi wax lu daw yaram. oui Malick si suur mm-hmm. il di ñoom ils ont consacré leur vie au club. au club que léegi mag lañ. Mm-hmm. pour que ñuy génn di dem entraînement sax jafe na. il est temps que génération. bi ci seen gannaaw. Mhm. ñëw relever leen à tous les niveaux et il avait raison en le disant. c'est vrai lay oui oui oui c'est vrai voilà loolu rek moo ñu kii pour dafa xam nga nga dajaloon parce que xam yu njëkk doon mel ne que papa. mais parce que gis nga dirigeant yi. Ah. daañu wutal jour liggéey. daañu faj parents jour bu ñu feebar yow yan dirigeant ah. bi may ñëw dañ ne ma ndax da nga bëgg sa jàng wala da bëgg liggéey mhm. ñu ne liggéey koo gisaan foofu lañ leen di wax. parce que booba temps jour ah. jour du dem dañ koy wutal liggéey dañ koy wutal liggéey. Mhm. le joueur talentueux du du du émigré. du émigré dañ koy wutal liggéey. ñoom Assane Masson Diop. waaw ñoom Medoune Diop. Gabou Sarr Gabou Sarr pas Gabou Sarr. Tidiane Sow Tidiane Sow. waaw ah? waaw Pape waay oui oui ah? dirigeant yu mag dirigeant yu mag yoo xam ne. Mhm. Ah? dirigeant yoo xam ne ay papa lañ. ay papa lañu. entraînement daan na jeex sax ñu jël jour bi dugal ko ci otoom. mu dem këram reer soog ñibbi. xam nga genre après ñun ak lañ daan def. Hmm. ku ci nekk da nga amoon parrain. waaw bu ñu convoqué vendredi. waaw parrain yi kër Pape Seck. ñii kër Medoune Diop ñii kër Momar Ngom ñii fii la ñuy fanaan. tu as appris le décès de Momar. Momar Momar Ngom. Momar Ngom il a beaucoup fait pour le club. beaucoup oui oui ah beaucoup. oui oui dirigeants yooyu. oui oui ah, ñoom Lamine Diack. waaw ah. ah oui c'est des pères. non c'est des pères. ils oh, gis la. oui oui mais là tu de mouiller le wax nga dëgg boo xamee ne. wax nga dëgg non bu ñu la gagné sax di nga xam ne yow mii ci yoon lañ ko teg gagné la. moom laa wax ni boobu temps époque doomu bi la. équipe bi la. léeg-léeg gis un joueur brillant ci nawetaan après da nga naan kuy papaam c'est pour savoir fan la war a jëm la war a jëm mais ça <laughs> parce que bu ñu doomu Lamine Diack nga ni ah, ah. Foy la jëm wala Jaraaf Foy la jëm wala Jaraaf doomu Guita Mbere ah Gia la léegi nag loolu moo jeex loolu moo jeex laay mhm. loolu moo jeex wax nga dëgg gën a sonal gendarme tamit mhm. équipe yooyu équipe bu nawetaan yi waaw dañu jege dañu jege am na ku ni ba ñaari tali. ñaari tali formé ba léegi la la gendarme parce que euh, filière la woon surtout càmm ba fa dëkkoon voilà. am na ñu ni càmm ba fa dëkkoon am na ñu ni ñu daan dem ñu daan ñëw gendarme. Djibril waaw xam nga dëgg mooy président ñaari tali ñaari tali wax nga dëgg wax nga dëgg. Ah, non wax nga dëgg Aliou loolu mooy équipe nationale yéen gardien nga fa daan dajeel. qui m'a beaucoup épaulé dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te yéexal Demba Mbaye Demba Mbaye. non ya yaag Birane Ly. kon yaag Birane Ly daje ngeen fa. maag Birane Ly daje nañ fa. ah oui. mais Demba laa gën a laa gën a yàggale kii nationale. Demba Demba Demba ndey saan il a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup fecc ma. wax nga dëgg Demba Mbaye wax nga dëgg. Euh, Birane lii oui oui Maguette. Maguette Niang Maguette Niang ñu ko daan wax Ruda Kof Ruda Kof <laughs> mais fin de carrière bi may bàyyi Mansour c'était mon poulain Mansour Wade. Mansour Wade. Mansour Wade fekk na la en équipe nationale. ma man waaw. fekk bon fin de carrière laa ne. oui Cheikh Seck. waaw je crois Cheikh Seck am na daal problème bu amoon ñu doon dem Maroc. waaw léegi Pape Diop ne benn gardien rek moo fi nekk boo xamee ne bu nekk en activité nekk fin de carrière Alioune Sarr la. waaw nañ ko couplé Mansour bu Cheikh Seck jugee voyage boobu. waaw fekk si ñu Maroc yu mel noonu. oui oui. je effectué la déplacement. non Mansour Wade la. Mansour Wade Mansour. waaw police moo demoon xaw ma fan. waaw Cheikh Seck nekk fa. ah d'accord yow yow man mii la ma doublir noonu rek. way way mais heureusement Mansour jógee voyage am fekk ñu. voilà dëkk ba est-ce que. waaw est-ce que ak Cheikh Seck tamit. voilà beaucoup marqué. sama boy ñoo bokkoñ. waaw. waaw yii ñëpp waa Médine ngeen waa Médine waa Médine <laughs> la ñu. waa Médine ngeen. waa Médine la ñu. kon ba mi ngi nii Alioune Sarr gën ngeen ko gis. Euh, am nañu ko gës gëj gis ci yéen depuis les années 80 yaa ngi arrêté. Caire 80 après Caire 86 86 nga arrêté ci la arrêté football. kan moo la relevé euh, bi bi ngay arrêté. bi may arrêté ku ñëw jël sa place Disco. ah Cheikh Cheikh Omar Sy. Cheikh Omar Sy. Cheikh Omar Sy Ablaye Diop. ak euh, Pay Pay. Pay Pay. Pay Pay y' avait. Tegolu Sidek Pay Pay Tegolu Sidek waaw. te góor si rek. oui oui wax nga dëgg. waaw ah, mais xam nga léeg-léeg gardien bi buy dem. dafa bëgg bàyyi fu lu wóor. lu wóor ñooñu nga fa bàyyi woon voilà bon qualité yi mu amoon. voilà ku sûr. wax nga dëgg ku sûr la woon. kon boog ngeen ko gis depuis une trentaine d' années peut être quarante. waaw Alioune Sarr soixante dix. Jeanne d'Arc équipe nationale du Sénégal. Jeanne d'Arc kan ma leen doon entraîner les années bi ngeen di dem demi-finale du Lamine Ndiaye non. Lamine Ndiaye lay sow xoolal àddina moo gàtt ñoom ñaar ñëpp tey ñu ngi ci dëgg ci dëgg tey ñoom ñaar ñëpp ñu ngi nelaw ci biir suuf Lamine Ndiaye ak euh, lay sow te dëggalu na euh, dem nañu huitième de finale vainqueur de coupe waaw kon tey Stella Stella d'Abidjan Stella d'Abidjan fa ngeen am penalty door ko mu dugg filet bi génne bal bi arbitre bi ne continuer penalty bu dugg ba filet bi génne ko. waa ah, Ivoirien yi continuer jouer. ba ca bi. li koy téye ca biti. waaw xam nga bët. waaw foofu la daal ñëwaat. arbitre bi ñu allez continuer jouer mel na ku dal ci <laughs> mel <laughs> on en a vu on a vu Alioune. ça c'est vrai Alioune Sarr Jeanne d'Arc équipe nationale 70 looy tëjee waxtaan wi Alioune. di mais di la gërëm di la sant la. yéen moom lépp. kontaan Sarr. kontaan la ngay référence nag. jërëjëf Sarr dans koo wax mu ne laa jëw jërëjëf Sarr yéen a neex waxtaane jërëjëf ku waxtaan ak yéen waxtaan wi neex mm. waaw ku leen waxtaanee foo ko waxtaan wi neex léeg-léeg gars dañ ma naan laay émission bi dafa gàtt ma leen pourtant waxtaan wee neex rek ah mais ko consacré une demi-heure mu mm. waxtaanee boppam ah, ah, ah Alioune merci d'être venu merci ah, d'être venu je souhaite euh, ce club de cœur Jeanne d'Arc mm, mm, ci fi mu nekk mu jóge fa waaw waaw jóge fa euh, jóge bu rafet nag parce que gars ñaa ngi cee liggéey waaw ñu ngi cee liggéey tu as parlé tout à l'heure de Sadio Demba mu def lu rafet bi mu fi jaaree way way Pape Mbengue nag surtout Pape Mbengue oui oui Lamine vraiment. oui oui ñi ngi def liggéey bu colossal. voilà colossal. voilà Sadio bu leen bàyyi nañ jàpp suñu équipe. suñu équipe la non non mu leen ko bàyyi ñu ko bàyyi. parce que tey lu ñu am ak fu ñu mënti toll. c'est grâce à la gendarmerie. wax nga dëgg. la parce que souvent le ah. club a réussi. là où la famille a échoué. échoué. club yóbbu na fay na étude. Mhm. club wutal na liggéey wutal na liggéey. et cetera le ah. club a réalisé des hommes. davantage que des footballeurs moo tax vous avez bien raison di wax ni du ngeen ko bàyyi Alioune Sarr gardien de but de la gendarme Alioune merci d'être venu merci d'être venu ah naa ni incha allah boo fi dellu si atee daañu waxtaanee gendarme ci beneen niveau yaa ngi Sénégal ba kañ kañ ngay ñibbi sur la sur l'Italie maa ngi daal euh, ba fekk euh, le euh, le vingt neuf ah très bien voilà Alioune merci jërëjëf lay am na ñu ma ko doon laaj ana Alioune Sarr man leen dana ñëw il y a deux ans dama ko programmé woon mu xat ci ay entrée ak sorteem entre la France et le Sénégal tey la ko yàlla dogal te gëm naa ne bu Jeanne d'Arc nekkee ci euh, euh, ci leer parce que lëndëm la en ce moment fa Jeanne d'Arc jóge demi-finale Coupe d'Afrique en 74 tey ñu koy dégg dans les bas-fonds ñoom dinañ ko dellu si ñoom ak génération Alioune merci d'être venu. jërëjëf allah à la prochaine. merci merci merci a ñëw.